amen, amen. vendredi 27 samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019 Kumpentum, capitale culturelle du Sénégal 5e édition festival Pentium Niani, les 27 28 et 29 décembre 2019 à Kumpentum. la sécurité un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires ci la nuit festivalu ren bi sous le patronage de son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak soxnaam soxna Sall première dame du Sénégal sous le parrainage de maître Sidiki Kaba ministre des Forces armées, un digne fils de Tambacounda, sous le parrainage effectif du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, du ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, de tout le gouvernement du Sénégal. Monsieur Abdoulaye Dia, président directeur général du groupe Fortune Capital, maire de la commune de Demetz, di Andeti festival bi partenaire partenaires la SICAP SA, la Fondation d'entreprise de la Sonatel, CMU, famille muy feu El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo PUDC site d'information Bidi Dakar Actu Radio NYANI FM ak conseil départemental bu Pentum ci M. monsieur Oumar Sy ñuy séntu ci festival bi lu jege fukki visiteur ñu wara a ko Ñaani Wulli Jolof Tambacounda Gambie Congo Brazzaville ci gàttal ci sous-région bi yépp 5e édition du festival Pentum Nyani. 9 activités culturelles dana fa am ethnie à l'honneur léppal xew-xew Bangok événement Bangok Adjuman ñaar fukki fan ak ñaar samedi ñaar fukki fan ak ak dimanche juróom-ñeent ci weeru décembre 2019 ci Koumpentoum ga ca Tambacounda elasi cam mo ganduɗa ko kanko ardoriɗo ko wiyete ko sambourde métier eyyi mi yettiɓe no fewi no wona seeɗa eyyi mbiɗo jogui tan weltare mawde hande e ñalawma hande o wonno ñalawma hande o ɓe teddiniri kam ɗo pour parénage pour sambourde métier gonɗo ɗo département cumpintum eyyi mbiɗo hen noon welti no fewi sabu ne ko eh, président conseil conseil départemental ko kamɓe mbaɗi initié ɓe darni ɗum ɗo pour wiyete wadde surne culturel heɓino jamanuji saga nde fuɗɗade sikkanoma ni ɗum yahata kono allah wonde moƴƴo ɗum yeyto sikkanoka ni eyi wadde noon ko kamɓe mbaɗi parane miɗo hen welti no fewi saabu ne wona min tan woni ɗo responsable département wona min tan woni ɗo maire kono noon ɓe cuuɓimi hen nder hen ɓe mbimi ko a min jiɗi hande teddinirde ɗum ɗo eyi mbimi ala kulli haalin fulɓe mbi teddungal koko rondete wona ko dasete tey nag dañoo ñëw fii rek pour xool euh, li nga xam ne moom la artisan yi waajal exposé ko fii waaye bés bi euh, suba la borom bés bi aussi suba lay ñëw donc ñun da ñëw justement pour ñëw rencontrer acteurs yi xool aussi li nga xam ne noonu la ñu waajalee Euh, bés bi donc loolu moo waral suñuy suñuy tànk fii fii tey li ñu gisagum nag dal na suñu xel gis nañ ne euh, exposition vraiment mu ngi produit yi mu ngi amélioré wu ndax euh, quantité bi lu mu bëri bëri bëri te amul qualité aussi li ñu soxla duñ ko am mais li ñu li ñu gis fii tey ñu commencé ko di ko indi par rapport ak édition yu njëkk yi xam nañ ne avancement mu ngi am te bu soobee yàlla dañ ci taxaw aussi mu gën a am mu gën a gën a jëm ci kanam dégg nañ bu baax soxna si Fall li mu fi wax léegi li mu wax léegi ci seen i doléance ak yu demee noonu incha allah loolu yëpp dañ ko tënk suba bu soobee yàlla dinañ ànd ak kilifa gi ñëw fii ah, ngeen fexe itam ba ni artisan yi te teew fii bu soobee yàlla itam doléance yi ñu fexe yëpp dinañ ko porté gaa waaye nag moom moo ñu gën a placé pour mën a porté lépp loo xam ne lu jóge ci gouvernement bu Sénégal la pour jëm ci askan wi te loolu moom xam nañ ne. Euh, mu ngi ci taxaw saa su nekk yaakaar nañ ne tamit lu lu ci tàbbi ci loxoom bu soobee yàlla lu mu ci man dina ko def ba balaa yàgg Koumpentoum li ñu li ñu yu ñu bare dinañ ko dinañ ko mën a am incha allah rabbi loolu dégg nañ ko bu baax. Euh, sëñ Camara ci wàllu formation yi tamit dégg nañ moom itam li nga xam ne loolu la wax programme bi muy wax formation boobu effectivement daanaka équipement yi moo ci des mais nag euh, semaine ba le passé ñu ngi nekkoon ak ci ay atelier li ñu wax ne moo tere mu démarré mooy équipement yi xam nga atelier Sénégal yëpp daanaka boo leen bëggee wutal ay équipement day xaw a day xaw a métti mais ñoo ngi ci di dajale équipement yi pour ñu ñu at ñi nga xam ne sélectionné woon nañ leen ci Sénégal yëpp xam naa su ma tere bu soobee yàlla dinañ commencé joxe yenn équipement yi par rapport ak euh, ak ak programme boobu kon euh, daanaka loolu moo doon tey li nga xam ne li ëpp solo ci li nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon wax fii xam naa ba suba ak jàmm ba kilifa gi ñëw euh, monsieur le président ñu ngi lay ñaan tamit suba programme bi ak lu mu bëri bëri ak lu mu xat-xat-xat nañ fexe mu ñëw mu ñëw fii gars yi mobiliser artisans yi mu ñëw fekk leen fii euh, ñu wax ko li nga xamante ni bii tamit moo xew ci dëkk bi lañ fiy liggéey tamit mu tegal ci boppam bëtam ah mën a gën a sawar pour jàppale waa waa dëkk bi ndax moom wax dëgg yàlla euh, ku ku ñu jàppale la ñun secteur artisanat lépp bépp activité boo xam ne ñu ngi koy def au niveau de Tambacounda ministre Sidiki Kaba mu ngi ci def lu mu man pour jàppale ñu pour loolu mu am mu am réussite te ku jox cër aussi artisan yi la teraanga bu mu séddalee boole nañ ci donc bi mu ñëwee léegi ñaari billets maaka may joxe na ko secteur secteur artisanat te loolu xalaatuñ ko woon ne sax dina ma a am jox nañu ay équipement ci wàllu couture ak yeneen yeneen affaire te nekkul ministre de l'artisanat mais nag fu mu dem day plaider pour la région de Tambacounda. donc lu mu am mu andi ko mu andi ko foofu kon nag yu mel nii occasion la boo xam ne tamit nañ fexe ba mu ñëw mën a jàkkaarloo ak artisans yi suba suba ak jàmm euh, ñu fekk ñu mën ko wax seen i seen i doléance yéen it lu ngeen ci man ngeen jàpp ko li ñu wax fii ñoo ko déggandoo ñun ñëpp ñu ñu ñu ñu porté ko. voilà maa ngi félicité bu baax jigéen ñi ci seen euh, ci produit yi nga xam ne ñoom la moom la ñu moom la exposé fii comme ni ñu ko waxee ne ay produits de qualité la moom soxna si Fall ak. Euh, maire kii may kii Fafana ñu ay ay ay pionnière lañu ci ci secteur bi gis nañu xale yi tamit ñu ngi ci topp léegi di góorgóorlu bu baax ñu gën a joxante loxo rek jàppale leen ba ñu mën a gën a dem ci kanam voilà kon ñoo ngi leen sant baax di leen gërëm merci. monsieur le président euh, Ablaye Sarr jóge fii boo Tamba ñëw seet si seet si ñi ñëw seet si festival ñëw participer encore si festival pencum ñaan yi di encore délégation bu mu Andal, di encore monsieur le maire conseil économique social environnemental Ablaye Ba nga xam mooy encore di nuyu euh, délégation ñu fi fekk euh, euh, acteurs yi nga xam ne vraiment am xam-xam bi ñu ngi leen ci sant di leen remercier di remercier monsieur le président parce que depuis festival bi commencé ba léegi euh, sa sa loxo mu ngi ci saa yu ñëw rek day fekk beneen activité moom moom ngeen am moo tax loolu mais depuis ñi sos festival bi boo Mbagnick Ndiaye ministre ñëw fii je crois ñëwoon na fii visiter kon ñu ngi lay ci remercier bu baax a baax loo ci jàpp te ñaan yàlla yàlla yokk sa martaba euh, dégg neen lu ñu wax parce que liggéey bi ku ko gis nga xam ne ne doomu Koupantoumi ñoo ko liggéey kon loolu vraiment xam-xam la kon des na mérité nañu ñu jàppale leen euh, wax dëgg yàlla conseil départemental amoon na benn kii bu ñu signé woon ak IMSEC bo joxee fa 2 millions pour ñu jàppale jigéen yi mais finalement ba léegi affaire bi doxagul mais le conseil départemental bu kuppantum ak bu Tamba signé na convention avec ADL moy bu Malal Camara jité ak crédit mutuel je crois commission bi mu ngi siy def ñom tamit suñu commission yi vraiment su lolu euh, commencé ñi mun si am ay financement lolu un vraiment conseil bi dinañ def garantie ñin inshallah dinañ verser mais nous avons tamit jigéen yi indi projet au niveau du conseil bu nga xam ne ne liste bi bu ñu koy yóbbu jëbbal crédit mutuel ñi mun a ñoom tam bénéficier ay projet te encore toujours euh, lu may ñaax askan bi rek euh, am même préfet tey wax na si DER bi DER bi vraiment day gën a yokku mais il faut nit yi taxaw ñu nga xamante ne jotoon neen ñu mun a ñëw di fay parce que à actuelle loolu moo loolu si loolu la ñu nekk te encore xam na financement bu nga xamante ne fonds crédit national joxe na ko woon fii mais boo gisee ba léegi ñi ñi ñiy ragal di ñëw ñu ñuy jël ñi duñu fay te suñu yu rek day indi ay jafe-jafe kon vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax monsieur le président te xam naa ni incha allah si Sidiki Kaba tamit ñu ngi koy remercier parce que yow ànd neen ak moom ba Medina Gounass foofu laa la ma lay wax affaire festival bi bon nga jàpp si te xam nga ko bu baax te nit ki su defee lu baax soo toogee da nga war a wax ne diw def na lu baax parce que maître Sidi Kaba moy parrain bi mais délégation bi bu mu démé bu len woyé jox na len 8 millions koku xam nga du lu ndaw té le budget du conseil départemental c'est 10 millions mom mu joxé 8 millions kon xam nga né def machallah té ministre de la culture 2 millions la def kon xam nga mom lu mu def machallah indi ñu 2 tonnes ciép indi ñu 417 xam nga koku machallah koku lu mu def li diñ ko wara wax li ñu ko war a wax askan département bi ñi xam ne ne maître di Kaba day jàppale askan bi comme nu ko président waxee kon bu fi ñëwee dinañ ko indi boo fii mu xool fii lu ngeen seen problème ngeen wax ko parce que bu baax la ku bëggu région bi la mais vraiment pour mu mun a jàppale jigéen ñi kon du ma guddal wax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Enggak, enggak, enggak, enggak,

vendredi 27 samedi 28 et dimanche 29 décembre 2019 Kumpentum, capitale culturelle du Sénégal cinquième édition festival Pencum les 27 28 et 29 décembre 2019 à Kumpentum. la sécurité un levier pour le développement socio-économique et culturel des territoires ci la nuit festivalu le patronage de son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak le soxna première dame du Sénégal sous le parrainage de maître Sidi Kikaba ministre des Forces armées, un digne fils de Tambacounda, sous le parrainage effectif du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, du ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat, de tout le gouvernement du Sénégal. Monsieur Abdoulaye Dia, président directeur général du groupe Fortune Capital, maire de la commune de Demetz, di Andeti festival B partenaire partenaire la SICAP SA, la Fondation d'entreprise de la Sonatel, CMU, famille Khalifa El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo PUDC site d'information BIDI Dakar Actu radio nyani FM ak conseil départemental bu qui ci njiital monsieur Oumar Sy ñuy séntu ci festival bi lu jege fukki junniy visiteur ñu wara a ko Ñaani Wulli Jolof Tambacounda Gambie Congo Brazzaville ci gàttal ci sous-région bi 5 cinquième édition du festival pentum nyani neuf activités culturelles dana fa am ethnie à l'honneur Lepel, xew-xew Bangok événement bangkok ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar samedi ñaar fukki fan ak ak dimanche ñaar fukki ñeent ci weeru décembre 2019 ci Koumpentoum ga ca Tambacounda. Oh.